salaamaaleykum amis téléspectateurs salaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen a safoo Equivox TV bienvenue tey ma am mbégte ak kontaante dalal ki nga xamante ni moo di 10 000 problèmes ñu war a waxtaane li nga xamante ni moo di wàllu àdduna war a waxtaane nga xamante ni moom la génn def euh, bërki démb maanaam def vidéo daal di tifaar ki nga xamante ni moo di Bijou Ngoné waaye mu daal di defaat vidéo aussi tamit daal di baalu ak nee na ma coow loolu yëpp ay euh, yoo xamante ni la woon dara amu ci moom dañ koy jox sunu micro di ko char bu baax a baax 10 000 ñu char yee Wagwan di la bëggee di bëggee Sénégalais yëpp suñ si euh, neer bi tamit di nuyu tous les mhm. waa di la wax foofu rek di la leeral som si affaire problème ak man ak Bijou Ngoné. Mhm. Bijou Ngoné amuñu benn problème. yaa barke yàlla amuñu benn problème. Mhm. sama sœur la sama mag la sama nit la. mais police mbay moom moo def benn affaire dëmm maanaam affaire défaillant parce que moom si loolu lay yëngatu. di coller fii ay kanamam. di jouer ay film di wax nañu loo xam te ne nekkul pour gagner nañu. Euh, pour am si nit ñi xaalis. Mhm. loo tax ma defaat vidéo ma jégalu biisu ngóone. Mhm. parce que jotewul dara te tooñu ma wax dëgg yàlla ko waaw bëgg na ma ku baax la tamit mooy waaw mooy loolu quoi mais lépp police mbay la mais sama diggante police nag dinaa ko lijjanti. li may du fi foofu rek mooy si mhm. police mbay. nekk lii lii nga baax si xel bu sax fii naan la ay lii classe nii non non bu ma la jàppee dinaa la noq point loolu nag si bàyyi sa xel billaay wallahi man fu ma la jàpp naa la defal bagage loolu moom na nekk sa moyen. fu ma la fekk naa defal kooku bu sax am sax sekk sàkk pour nekk fii ne si télé naan kii sama koy def lii aw ma jot boobu mais suma la jàppee dinaa la nokk point waaw mais dix mille lan la la Pawlish des ba ngay waxee ci ton bu mel nii non parce que euh, boobu boobu waxul dulkat la mhm. wa fenkat la fenkat te day jouer ay film day jouer ay affaire day def nii day duul day ah. jaxase mhm. tu vois maanaam mënatu ma nekk si moom nan ni ay nii nii parce que am naa leen war a développé lu du moom kese quoi ma tënk ko ni ko moom na xam ne bis fu ma ko fekk dinaa ko nox mhm. kooku moom na leer si mhm. waaw euh, dix mille ñu ngi ci nawet ah nawet bi daal di euh, commencé mu daal di taw démb taw bu mhm. metti ku ne xam na ni Dakar bu tawee nit ñi dañuy nekk ci problème euh, lan ngay wax ñi nga xamante ni ñoo ko nguur gi waaw mais taw moom mbiru yàlla la ndax wama imiru illaa la yaabudullah yàlla dafa wàcce fii ngeen ñu jaamu ko taw bi taw yàlla la mbiru yàlla la waaw nguur gi bu ñu koy wax mën na nga wax leneen si côté développement si côté onde wan dëkk mi ni waa ni muy ondandee affaire yooyu nii mhm. ndox mi di bañ a jaar si yoon yi mhm. euh, parce que mënu ma gëm ni chaque année ñu am problème mu ndox mhm. waaye yoon bu muy jaar mais xaalis bi nu jël du ko campagne affaire yoo xool bu xaar ba këtt nit jonn olof Njaay nee na bu këtt nit jonn bul xaar ba këtt nit jonn am na loo xam bu jotee da nga ko da def la taa loolu du ñëw dakaar moom euh, taw moom arrangé wu fii. wax mhm. yàlla quoi. Mhm. waaw bu dee taw mën na arrangé ñeneen mais taw arrangé wu fi mhm. tu vois bëgg na ko nag ndax xéwalu yàlla la. ñu gis ngeen temps yi dëkk bi ni mu tàngee. temps bi ni mu mel te lépp ay balaa la. puis ni mu yéexee taw. parce que tamit il faut tamit euh, état bi. ñoom ñooy surtout ñoom nguur gi. ñoom ñoo mën a génne ay message euh, wax ko nit ñi. mooy lan nawet ñëw na ñu arrêté seen sabar yu bari yeeg seen simbi yi ñu arrêté yooyu. tu dëkk boo xoolee sax jamono ab lay Wade sax uh-huh. bu nawet daan ñëw uh-huh. day aj sabar yu bare yi uh-huh. tu mais loolu nan lay tawee xéwal na la fi ñëwee yaa ngi dégg problème affaire de góor jigéen yi mais gis nga feebar bi mbas mi tey ñoom dana war am ay solution yu bokk ak ñu fàttali ñu si masque c'est vrai porter les masques c'est bien tu vois mesure barrière yi tamit c'est cool mais tamit ñu xool beneen solution ñu xool luy solution ñu ëndal ko nit ñi parce que bi ñu génnee vaccin yi ba léegi nit ñaa ngi dee. Mhm. Eh, yaa ngi analysé yow. est-ce que mhm. est-ce que def nga boobu analyse bu baax a baax. ñu ngi def analyse bu baax xam nga mhm. te vaccin yi ngay seen benn bu nekk xam nga ñaar la jar. te vingt cinq mille. léegi mille personnes nu jaay ko léegi mille personnes mille personnes bu nekk bu ñu jëlee ko la vaccin ñaata la loolu ñaata la ci xaalis quoi. nan xool beneen waxuma bu kenn kii bu kenn def lii mais na na ko ne jël sa engagement c'est bien. mais état tamit na xool beneen solution bu muy dimbalee population sénégalais yi. moo am solo quoi. Mhm. mais pas bi parce que temps maa ngi si temps yi tamit ku takku ma suñu jàppale dugal si biir jéem nga fay. Mhm. loolu lépp ay firnde la yoo xam ne kay teg si kan baatu nit ñi. Mhm. nanu may sénégalais jàmm ñu bàyyi nit ñi ñu firi. ñu bàyyi puune yi ñu firi. yàlla moo yor dee ndax xalaxala mawtu wal xayaat. dee par force la. amul nii dee amul garabam. dee dina ñëw nu nekk ndax yàlla moo sakk dund moo sàkk dee ndax xalaqal mawti wal xayaat mhm. tu vois yàlla moo sàkk loolu te loolu na temps fait dafay am mhm. te sa dee xamoo kañ la ndax alimul xaybi wa shahadati yàlla moo xam kañ la ak naka la ak fan la xamal lépp xam sa bopp xam la tey bu demee ba toog tey benn nafeq jóge fee naan day xar géej foofu ñu daal di ñëw ñu gis ni Sénégal dafa bëri ay charlatan ñoo xamante ni à chaque instant dañuy génn damay def lii damay def lii ñu gis Kunkandé génn ne moom day xar géej gi keneen génn ne moom bu Kunkandé xare géej yi moom dina dina dekkil euh, ñi dee woon depuis 2010 may la cinq minutes <laughs> nga waxtaan ak ñoom yow nga génn teg sa échelle ne bu Kunkandé xaree géej yi dangay ngay asamaan si waaw léegi nag euh, ñu gis euh, ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni am na le cas de Lobé Ndiaye benn charlatan moo féticheur moom moo ko rey euh, tey euh, en tant que porteur de voix euh, lan nga ciy wax. gars yi li ñu war a njëkk a mooy ata peine de mort. Mhm. ko rey nit dañ la war a rey. xam nga la mooy suñu problème la tax ñun suñu état cuune niil maanaam ñoom si xel dara. Mhm. parce que loi bi ngay gis fii yëpp. te constitution la boo xam ne ay nit ñoo toog assemblée réunion mhm. bind lii mooy constitution bi. Mhm. loolu na ñuy mhm. mais da ngeen dem si charia ngeen tëbb ci somme. nan tëbb ci charia somme ñu woote ko biir assemblée ñu valoriser loi boobu noonu ko mais loi bi lépp loi euh, te constitution bi nee na lii. doo dégg mu ko ñu la aaye sangam yàlla nee na lii. pourtant man pourquoi ñun ñun mënuñu coppati somme si si dina l'islam man du du ma intellectuel mais ndongo daara mhm. yow boo taxaat fii naan ma ay discours bi man saar daal yi indil firi la ko mu jeex. yàlla lépp la bind. Mhm. Sénégalais nag dafa bëgg sëriñ moo tax lu nekk dinu nu dal. Mhm. ba pare yenn journalistes yi ñooy lënkook ak yenn ak yenn ak yenn xoolal féticheurs yi. il faut ñu xàmmee sëriñ. ak féticheur. féticheur bu si dee safara nga jëm. ndax mu ngi si alxuraan sax yu àllama naas sexra mhm. maanaam da jàngal nit ñi xërëm mhm. fétis xam nga taxaw di génn xaaj du luxus ay jinne loolu affaire fétis la mhm. ñun nous sommes de des féticheurs nous sommes des musulmans li ñu gëm mooy sëriñ ñi gëm wóolu yàlla ñoo ñooy wul ñooy jàngale ay alaaji Malick borom Touba ñoo ñoo fi bàyyi li ñu weng ay Cheikh Ibra Fall def nañuy taalibe doon Baye Fall bañ a nekk góor jigéen ñun ñooy nañuy roy mais pas dooméram bi taxaw si télé yi takk say pertaaw ku doon sa bët. Mhm. xonqal di si parce que ñoom ñooy teg boobu scénario ak yenn journalistes yi. Mhm. ndax pour amay vie. Mhm. Euh, pour seen compte yi am doole. def na ko seen TV ñu fay lamp mais lamp su fayee xam micro bi xam dana coupé. <laughs> vraiment mais yenn yi boo koy def dafa mel ne xoolal dof ngay wax wala gumba. mais gumba sax gumba sax gumba sax gumba si boom sax mais gisoo gumba yi xanaa ak seen yar yi. yet nañu yor yet mm-hmm. te fu leen neex na ni dem mm-hmm. fu leen neex na ni dugg te leen neex na ni jaar mm-hmm. te gumba te yet lañu yor ndax yàlla moo leen yor tey ku Kanté bu taxaw fi naan day xari géej gi gars yi di ko valoriser ñii di ko gëm damay dama naan rek man boo see mënaan kat dinaa boo xaree ma peinture parce que xam naa du mos a xar sax biroŋ ndox billaahi wallaahi te bu ko xaree ma peinture asamaan si wala ma tukkal adduna bi moom si waxam ndax ëpp nu maa xam te amu ko et puis daf ñu yeb sax ba naan day ñëw Soumbédioune mais ñu ngi koy moom nag ñu ngi lay xaar nga ñëw Soumbédioune yow rek nga ne xaar go gor nag sa wax ja amul préfet la moo maa ngi dégg lu nekk ay rumeur ay préfet moo la ñaan ak kenn ñaanu la benn sëriñ amul sa jot yow xoola mënoo muu sa waane wax ba tam xarit doo si génn noonu bul sax ak foo mën a dem même boo deewoon sax daan la dekkil nga nga xool li ngay def mais waaw mais xam nga la mooy géej yàlla bi muy bind àddunam est-ce que tu te rappelles est-ce que yaa ngi fàttali ko si xalaqa samawati wal ardi fi sittati ayamin suma fala alal ars jàng alxuraan mais da ngay jéem a jëfee alxuraan bi nga jàng te nga bàyyi fétiche bi mhm. dafa xaram mhm. yàlla bëgg ko yent yàlla muhammad bëgg ko sallallahu alayhi wa sallam mhm. ndax huwa xaatum nabiyina wa imaam al mursalin mu ne si amana rasulullah nu farriqu bayna ahadi min rasuli wa qaalu sami'ana wa taxnaa qufraanak rabbana wa ilayka al masir laa yukallifu llahu nafsan ila wusaha lahaa ma kasabat yàlla yàlla du fowakaay mm-hmm. booy fétis sa fétis nga fétis booy def sa li ngay def nga def ko mm-hmm. yàlla bi muy tabax géej gi di di tàllal suuf si mm-hmm. nanu ragal yàlla mais xanaa gis leen li xew Allemagne ak Belgique temps yi passé ay Suisse li fa xew wata balaa xam nga am na loo xam ne wax bu jotee nit mënu ko def yàlla moo koy fajal boppam moo tax mu ni si ah, si benn aay bu tudd la wan zalna hazal quran mu ni wata nadribuha linnaasi laallakum yatafakkaruun mm-hmm. yàlla mu ni man dinaa mbugal ñu bari ndax dan ma fàtte mm-hmm. loolu nag mooy balaa mm-hmm. balaa mooy ba yàlla. Euh, est-ce que tamit luy waral ñu koy fàtte bokkul ci li nga xamante ni moom la société bi di doxee maanaam ustaas yi jàngale li nga xamante ni moom la yàlla wax jàngale wuñ la yonent bi wax maanaam lu neex doomu aadama rek la ñuy wane ci li nga xamante ni moo di mooy mooy li am ci télé yi. parce que xaalis bi ni xaalis bi leen la jox la. Mhm. xam nga nit ki bu lay may doon ko mu ko sa bëbi takk na suuf. Mhm. bu bu doxatee sax da nga naan ko est ki bu lay jox di la dimbali dëgg-dëgg bu toogee sa kanam bu doxatee sax du la déranger. non lu leer wax de. dafa leer duñ la wax dëgg te duñu wax nit ñi dëgg. Mhm. parce que mënoo nekk kilifa nekk si télé yi di wax lu la neex. Mhm. yow nga ne sëriñ nekk ci tele yi di bëgg bës. Mhm. bëgg bës ba to mais ana sëriñ sax topp ci tele bi télé bi sëriñ da nga war a dem jàngale ji alxuraan. jàngal nit ñi diina lislaam parce que inna diina inda allahi lislaam sëriñ da nga war a moytu mais sëriñ yoo xam ne ne xale bu tooy ñu paawnal waaw maire bu jekk ñu final munin bu waaw munin bàyyi xool fu mu gën a bëre ñu dem tibb dugal seen poos uh-huh. ñoo dàq sànke uh-huh. ñoo gën a bëgg àdduna te ku uh-huh. nekk kat-kat ngay dawal dafa am ay iPhone ay X masque ay douze est-ce yenn sëriñ si yenn sëriñ yi nekk fii waxuma sëriñ de dafa am sëriñ am këriñ yenn këriñ yi boo ñi fi nekk di woote a pouvoir ngir yàlla dëkk bi noonu la bare ay dof dañu ne dagale xool dof yëpp xool ngeen faj leen. Mhm. ñu xam ne yéen a def lii. Mhm. ngir yàlla. waaw Sénégal ak a ay dof. da dof yëpp da ngeen di xool dof yëpp faj leen ñu xam ne sëriñ bii dulkat bii moo faj kii. Mhm. ñun loolu nañu soxla mais par nekk si télé yi di si ay film bàyyi ba guddi dem boori géej ñu lay filmer ngay ñaap si lëndëm bi di jouer ay scénario ba amee yenn bukki nag topp la naan la wéy yaa ko yor gis nga doomu aadama da nga war a ragal yàlla <laughs> doomu aadama xam li gën a bon si àdduna mooy lekk loo xam te ni alalu fen mhm. Baye Fall dañuy xëy dugg seen atelier job seen ay table peinture toog di xaar client bu ñëw. Mhm. wa saa ñu am marché dem peinture mhm. wa saa ñu am émission def ko. Mhm. wa saa ma joué benn journaliste mu am mu jël dara sax may ma ko. wa saa benn nit ku baax dégg sax sama message woo ma taf ni ma ma may la. man saa damay sonn woo samay nit. ñu may euh, may ma. Mhm. kon donc ñun li ñu war a def si mooy waxante dëgg. Mhm. Tiba bàyyi tegante xel bi. Mhm. ba pare yenn journaliste yi di jéew ak yenn faux marabu yooyu di teg dil nan ay lii mooy bës. amul sens. amul sens nit ñi buñ leen fen nan leen wax li fi nekk. bu Sénégalais xam lan soxla ñu wax li fi nekk. mais léegi amatul yeete. ba ci série sax gis nga ni mu demee. foofu ay série si li bu neen. waa léegi foofu ñu taxaw fi ah. Euh, parce que ku ne xam na ni CNRA euh, ak Jamra déposé na trois plaintes ba mu jàll CNRA interdit lépp loo xamante ni euh, série infidèle dootul dawati ci benn télé ñu gis ni. ñu gis ni ay séquences yu yu yu yoo xamante ni yu doy waar moom lañ ciy génne en tant que porteur de voix yow lan nga ciy wax. loolu ñu koy nag loolu li ma see wax mooy ñu ni war a waxal. Mhm. mooy borom télé yooyu. Mhm. du ma seen tur te télé yu am parce que ñoom ñoo fa nekk te xoolal ay giwin a fa nekk mhm. ay giwin ay caga ay góor jigéen ñooy valoriser affaire bi ñoom da leen di neex nu jël la valoriser la mhm. mais série yi wax ma ci série yi man waa kan moo ci joué lu positif série yi nee ma diw si ban seri moo moo joué moo joué boo xam ne ni mu ngi yee nit ñi nga koy xool sax di jooy à part xanaa ñi lay reeloo ñoom saa neex ak mhm. ñoom saa nga ak ay waaju bon la xama nga waaju baax ñooñu waaw ñoom ñu ngi noonu ñoom mën na la reeloo uh-huh. ay comédiens mën na la reeloo uh-huh. mais série bu ñu toppandoo tubaab yi parce que ñoom dañuy toog si seen néeg yi jàpp ay film tubaab suba ba ngoon ay série uh-huh. maccante fóonante raayante da ngay toog sa papa toog sa yaay toog sa jabar toog sa doom toog sa goro toog ñu la film boo xam ni maccante sur maccante nga yaakaar ne booy bu su màggee li muy def day lamb ji ween yee nuuru buuj da koy def dafa leer fii ku yàqu sa gàlle nga yàqoo seen série yi ngeen teg ni ngi toog seen gàlle jël seen temps di xool ay série série seri série amul sens wan leen ni mhm. ñu réalité ñu joué lu baax xam nga mhm. acteur da ngay def yëfu acteur mhm. mais pas série ba pare ñoom seen série yooyu ñoom seen biir ñoom ñooy doxaanal seen biir ñooy laalante ñooy màccante ñooy dundu seen biir ñoom benn genre cercle rond la boo xam ne ni ñoom entre ñoom seen biir la nii la def benn buur la tant que duggoo si bu sono waaw euh, ñu gis euh, ki nga xamante ni moo moo yor direct euh, directeur de la cinématographie Germain Coly mu ni amul benn text boo xamante ni interdire na ñu jouer porno fii ci sunum réew loolu ay waxam la may laaj yow lan nga ko gisee. xam nga te góor jigéen toujours góor jigéen lay nekk. Mhm. ata franc-maçon ata franc-maçonnerie lay nekk. Mhm. y a deux. Mhm. combat bi dafa am lii de. ñoom ñu ngi xool ñoom ñoom ñu ngi xool nan la ñu yàqee société bi. nan na ñuy yàqee jeunesse bi. Mhm. jaar la ko si série yi. Mhm. ak concert yi. Mhm. ak woy yi. ndax moo ëpp doole. léegi ñu ngi dugg si marabu yi. tey sant yàlla. ba Dakar sax amee xolam bu baax Masaalikul Jinaan di sant si di sant sëñ Tuubaa bu baax di santaat. di sant si loolu tamit quoi. parce que ñoom bëgguñu loolu. bëgguñu ay affaire u l'islam. bëgguñu ñu mais Serigne lu mu wax xef sa jami jawaar ji nëbb sa mbooloom cër. tey yaa ngi see série wane sa xott yeeg sa xuur yeeg sa cokk yeeg ah di màccante teg say waayen nii boo koy def nga def ko sa néeg fii ku ne am nga lu ñu weng mhm. mais sutura yàlla moo ko bëgg mhm. tu vois bu wet ONG Jamra mhm. ñoom Mame Makhtar bu Jamra maa ngi koy nuyu bu ko ziar bu baax a baax ñoom seul ñoo fi nekk mouvement boo xam te ne mooy représenté l'islam fii bu wet ONG bu Jamra ñoom ñoom ñoom dañ leen war a dooleel assemblée ni mu amee loi constitution boobu. Mhm. maxtaar bu Jamra daf maanaam ak ONG Jamra. Mhm. dañu war teg tamit seen constitution boo xam te ni ñu fexe lii dégg naa ak Mame Makhtar mhm. ñu jël tuuti ci charia. ñu valoriser ko biir assemblée loi bi comme ça veut comme léegi teg charia ni ko rey nit. nan la rey. mais léegi da ngay rey nit. wa boo amee xool kayitu dof. doo yàgg si jeel bi. loi bi moo ko wax de. wa boo reyee nit. wa boo naanee sangara soo mandee. loi bi ko day wàññi sa pen mhm. loolu loi moo ko wax mhm. yaa nga dégg de waaw bu dee doo oto mhm. jaar ci xool si conduite bi waaw nga fiir nit mu dee du la tëj kaso loolu loi moo ko wax mais yàlla lu mu wax si rey point ku rey nit dan la war a rey ndax yàlla moo sàkk nit ki neexu la nga génn sa gon di ko pan mu dee neexuloo nga jàpp ko tëgalu ko kaso mhm. neexuloo nga sànkalu ko neexuloo nga ray ko mhm. ndax sa tàngu xol mhm. est-ce que yow sa xol boobu bu la yàlla toppoon loolu bu yàlla doon def loolu ba léegi euh, la wax ci sutura parce que réew mi gis nañ ni sutura amatul maanaam da ngay séq ak man teraanga suba neexuma la vidéo bi nga xamante ni envoyé woon naa la ko wala gel bi nga xamante ni moom laa nekkaloon ñu génne vidéo yi tas ko ci dëkk bi àdduna yëpp daat ci jot loolu mu doon phénomène boo xamante ni bëri na ci réew mi parce que seen liggéey ndeysaan loolu la seen bëgg-bëgg lépp sàkku fii. Mhm. léegi nag ñoom ñoom ñoom dañuy wut fii. Mhm. mais ñu nu amee fii bëgg na ko. ñu mhm. nu amee fii ñu nu amee fii bëgg na ko. léegi dañuy waxtaan sax ni sa xool sax. waaw mu lay xoola mu assuré ko. jël ko yóbbu ko YouTube la koy yóbbu. di Instagram la YouTube dem direct. ba pare épinglé ko. def sa photo. mu nekk yow yaa def lii. saa nga nekk di jox kenn xool benn benn xool vidéo. waa mu capturer la mhm. eh, am na ñoo xam ko da nga koy def mhm. day nekk si roxu mhm. def taatu neen tuunu neen ndaw si tam def taatu neen xuunu neen moom it ñi def appel vidéo nii yow yaa ngi si erreur léegi lool ñu def ko nga kooku da koy capturer da koy denc mais jamono mën na ñëw yàgg moom mu am seetaan laxasu seen biir yow doo bëgg lu dul weer ko waaw léegi loolu la gars def mais gis nañ fi la kaada booy woon temps yi passé bi génnoon ay sulam ba gars ko génnee may wax booy bi nekk kaaw ba jóge ko débat surtout réseaux sociaux yi dafa garaaw. Mhm. tu vois mhm. moo tax lu waaye di def léegi na nga ko na nga ko sóoraale quoi. Mhm. nii waa nii téléphone tu vois nii nii appareil. tu vois ñoom lu ñu jël da nga koy valoriser. te internet su dugg daw na. moo moo tax man su ma tooñee ma sur le champ dinaa defaat sama vidéo ma jégaluwaat ñoom ñu jël loolu daal di tas. ñoom ñu ka fen ba tas ko. noonu jëlaat tam ñu tasaat ko. ok waaw. parce que tooñ baaxul baaxul mais tamit. dafa baax ci doomu aadama